jël ay patron de presse ne ñoom ay sàcc lañu man dama gérer mille quatre vingt milliards cinq ans ñu jox ma absence de redressement ñoom waa impôt ñoo ma ko jox kon du deux milliards mooy yàq suma der man Bougane bi man aw ma njariñ ci Abdoulaye Wade aw ma njariñ ci Macky Sall musuma am privilège du ci Abdoulaye Wade du ci Macky Sall kon bu kenn di joxoñ wala di ma sorte non déggoo man samay compte sama alal sama compte sama alal sama bakkan sama compte sama alal sama bakkan ak sama liberté jaayee naa ko njariñu sénégalais yi donc moi je n'ai pas ce problème là